الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ينجي سنتر سنبروم سبحانه وتعالى من يورسقل ندجيك أبنيقم ففيني جلبن بند ci wàllu fiq nga xam ni mooy tax doomu aadama bi dégg diine ñu ko doon toppee ci téere bii di minhajul muslim bu abubakar aljazairi rahimahullah yéegsi woon ci buntu aj ak umra ba tey ñi nga war a jël almaadatu maadatu alxaamisa ca mooy ruknu saani wa huwa tawaaf bu dee ñu yor mool yu bees yi ñu ngi ci page deux cent soixante six mool boo mën a yorit nga xool aj makka nga dem ba almaadatu alxaamisa ruknu saani ñu noonu xam naa lu jiitu it ñu ngi ñaanal lenn ci suñuy doom yu jigéen yoo xam ni ñu bari ci ñoom ñu ngi jóge ci place yu sori daje woon fi tey daanaka dix heures ba une heure ñu ngi nekk jàkka ji kaw ak suuf fépp ñu dugg ko nettoyé ko yal na yàlla nangul leen te barkel leen waaw ñu ngi am it yóbbante it ki nga xam ne mooy imam Serigne Ndiaye it mi ngi nuyu jàkka ji yépp ñu ngi koy ñaanal moom it yal na yàlla saafara ko ca delloo ko ci mbooloo mi ci jàmm saafara bépp jullit kon su dee ni bokk nañu gis bu ñuy jël suñu bind bu jëkk day wax ni lii di ruknu saani wa huwa tawaaf lii di ñaareelu ponk ci aj mooy wër ga ñuy wër kaaba ga xam nañ ne mbokk aj makka suñu borom yàlla moo ko farataal jullit ñépp war fa yóbbu seeni xol même bu dee seeni jëmm mënu fa yegg loolu it moo tax ba bokk na luy tax sa xol bii gën a miin màkka gën koo xam mooy nga xam aj màkka naka lay demee loole bu la fa yàlla yóbboo nga mën koo jëfe soo gisee ku koy waajalit mën na am lu mu la ca laaj nga am loo koy wax doonte ne natt bi ñu yàlla nattu yéen ñépp xam ngeen ko te mooy feebar bi ñu ragal ci àdduna bi taxoon na ñaari at ci gannaaw yépp nanguwuñu kenn jóge fenn kenn jóge fenn daal di màkka amma ren dañ koo wàññi ba Sénégal mi nga xam ni mi ngi mujjoon a yóbbu lu ëpp douze mille ci ay aj ujaat ren li mu am sax manqué na six mille waaye falilahi alhamdu ñooñi yal na yàlla yombal leen ca yool ba yàlla boole ñu ko ñun ñépp kon mu ne altawaaf wa huwa dawraanu xawla albayt sabaata ashwaat mooy nga dem wër kaaba ga juróom ñaari yoon wa lahu shurutun wa sunanun wa aadaab am na nag ay chart chart mooy loo xam ni su manqué ci jëf ji jëf ji day yàqu moo am ay sunna yoo xam ne def ko dalay jural tuyaaba yu bari ñàkk koo def sib nañu ko waaye yàqul amma aadaab ya mooy teggin ya ngay nekke booy def charte ya ak sunna ya tatawaqqafu xaqiqatuhu alayha nga xam ne dana doon di tege la nga xam ne moom mooy jubluwaay te mooy xaqiqa bay tax suñu borom yàlla nangu loolu ndax xam nañ ne mbokk bépp jaamu yàlla xaqiqa ba ca nekk mooy nga yëg ne lii kat yaa ngi koy def ngir jublu ci jaamu yàlla loolu nag mooy aada mooy toroxlu ga ngay toroxlu ak téye ga ngay téye sa bopp shurutuhu ki demoon màkk di wër kaaba ga ana yan charte la l'islam teg ci loolu mu indi ci juróom ñaari charte charte bu jëkk ba mooy anniya inda shuru'i fiihi mooy nga yéeni ca ba ngay dugg ca jëf ja isil amalu binniyat ndax mbooli mi jëf yu ñuy jëf ci diini la ca jëkk mooy yéene ba ca lay tege fa kaana la budd li taif min niyati tawaaf looloo tax ba ki wër kaaba gi fokk mu ànd ak yéene ne day wër wa hiya azmu alqalb ala altawaaf taabudan lillahi taala te loolu mooy dogu go xol ba di dogu ne day wër kaaba gi jublu ci jaamu yàlla du sport wala tourisme wala nangam nangam wa taatan lahu azza wa jal jëblu ci topp la yàlla wax ndax suñu borom mu ne wal yatawafu bil bayt al atiq ñu aji màkk nañu wër kaaba ga ñaareelu chart الطهارة من الخبث والحدث لقبر الطواف حول البيت مثل الصلاة ñaareel bi mooy laab ci sa yére yi bañ a taq benn sobe laab ci fekk yaa ngi ànd ak njàpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dani wër gi ngeen di wër kaaba gi day julli la donc képp kuy julli fokk ñaar yi nga bàyyi ko xel mooy nga laab ay ànd nga ak njàpp say yére it laab mooy mucc nga ci ay sobe ñetteel bu siturul awrati isit tawaafu ko sola bokk na ci loolu nga muur sa awra ndax ki nga xam ni day wër kaaba gi moom mook kay julli ñoo yem looloo tax li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam altawaafu xawla albayti mislu salaa lii di tawaaf ci wër kaaba gi day moog julleeyam illa annakum tatakallamuuna fiihi lu dul da ngeen tey wax fa man takallama fala yatakallamu illa bi xayr waaye képp kuy wax day bu mu wax lu dul yiw donte ne mbokk seytaane yàgg naa tooñ doomu aadama avant l'islam di ñëw yéefir yi daan jóge ci gox yi sori di aj si makka suñu ñëwee da ngay àbb waa makka yëri ndax dañ ne yëri yiñ doon mooye yàlla duñ ko wëre kaaba gi koo xam ne amoo ku la abal yëri góor ak jigéen dañ daan bàyyi ba guddi ñuy wër kaaba gi loolu seytaani taaraloon na ko ci doomu aadama yi gis ngeen moom la borom bi di wax naan wa ida faalu fahishatan qaalu wajadna alayha abaana wallahu amarana biha ñu ngi noonu suñu def ñaaw teef ni yàlla ko dégle boo yoree sa téere mu ne wa alayhi faman taafa bi gayri niyatin aw taafa wa huwa muhdisun aw alayhi najaasa képp koo xam ne day war a kaaba fekk ma ngay amul yéene ci wër ko wala dafa tojle wala sobe moo nekk ci moom aw taafa wa huwa makshuful awra wala ba muy wër ma ngay feeñal awraam fa tawaafuhu fasidun wa alayhi i'aadatuhu ku mel noonu day tawaafam ba neen la te da koo war a baamuwaat lan mooy ñetteelu charte ngiree wër kaaba ga wér ñeenteel ba ngiree wër kaaba ga wér an yakuna tawaafu bil bayti daaxila al masjid mooy fokk tawaaf ba nekk ci biir masjidul haram walaw bauda min al bayt doonte ne ni sori nga lool kaaba ga waaye maadaama ci biir masjidul haram ngay tawaafe rek tawaaf boobee dana wér doonte ne ni suñu mbokk ba gisee yal na yàlla jéggal ko yërëm ko parce que nettali seen benn sëriñ dafa dem kaaba ga ànd ak ay taalibeem ñoom ñi ñëw am koo xam ne moom jàng na xam ne dajeeg ñoom ñi ngi ñàq tooy xip xip xip mu ne waaw lu ngeen ñi def nii ñu ne dañuy tawaaf lu ñuy tawaaf mooy masjidul haram la ñuy tawaaf ci boppam mooy juma masjidul haram comme li suñu borom ne dañuy dañuy def tawaaf bil bayt ñu jàpp ne moom juma ji ci boppam ngay tawaaf fa lillahi alhamdu jamono joojee moom xam naa ne yàgg na lool ndax waaye bu doon jamono extension bi moom xaw ma kañ lañ ciy def ñaar waxuma juróom-ñaar gis ngeen loolu mbokk da ngay gis ci ñàkk xam ca la bokk amma juróomeel bi an yakuna al baytu ala yasaari taif mooy kii wër kaaba gi day jóge nday joor jëm càmmooñ mooy kaaba gi fekk féete ko càmmooñ te loolu it ci kaw kiifu yàlla boo xam ne moom la def ci kaw asamaan yi gis nañu ni mboolem biddiw yi mboolem planète yi ñoom ñépp ñi ngi daw suñu borom mu ne wa kullun fi falakin yasbaxuun ñoom ñépp ñi ngi daw ci seen falak seen orbite yoon ba leen yàlla tëralal waaye loolu ñu nekk des milliards et des milliards ñoom ñépp ndeyjoor lañ jógee jëm càmmooñ ndeyjoor lañu jógee jëm càmmooñ comme naka waa Kaaba ga di defee mu ngi noonu ah waaw maa ngi ci sixième maa ngi ci cinquième bi non bu dee sama téere cinquième bi lay indi an yakuna al bayt ala yasari taif mooy cinquième bi waaw waaw amma bu dee sixième bi an yakuna tawaaf sabaata ashwaar mooy da ngay wër nekk juróom-ñaari tuur juróom-ñaari wër kaaba ga wa an yabdaa bil xajari al aswad nga commencé ba ngay wër ca xajarul aswad wa yaxtimuhu bihi ca nga mujj ca xajarul aswad li fiilihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zalik kama warada fi saxiix ki nga xam ne day dem di wër kaaba ga balaa commencé compter tour day ñëw ba tolloog xajarul aswad mu yéene ne mi ngi wër su wëree ba dellusiwaat muy un su ko defee sept fois xam na léegi matal na juróom ñaareel ba an yuwaaliya bayna al ashwaat fokk mu lënkale la nga xam ne mooy wër yi muy wër fala yafsulu baynahuma li gayri darura du ko dagg mukk lu dul xanaa loo xam ne lor la lu dul loo xam ne lor la te bokk na ci lor yooyu bu dee maga soo sonnee nga toog noppalu tuuti doo ko jógaat walaw fasala baynaha mi ngi noonu wa taraka al mawalaat li gayri darura batala tawaafu wa wajabat iaadatuhu koo xamee ni nii dafa bàyyi tegale juróom ñaari wër yooyee te bim koy def benn lor warulu ko ku mel noonu lam jot a def day yàqu fokk mu baamuwaat ko kon loolu lay wax ni mooy juróom-ñaari mbir yi nga xam ni bu manqué ci tawaaf dañ naan tawaaf bi baaxul dañ koy defaat léegi nag mu indi ay sunna sunna yooyu mooy niñ ko waxee sànq ñàkk koo def dañ koy sib waaye nag def ko day jur tuyaaba ju bari moom mu indi ci fukk bi jiitu mooy arramlu wa huwa sunnatun li rijal qadirina duna nisa la ca jëkk mooy li ñuy tuddee ab waaxu ab waaxu wa xaqiqatuhu la nga xam ne mooy jubluwaayam ba dëgg an yusaari at-taif fi mashihi ma at-taqarubi xutaahu mooy ka nga xam ne day wër kaaba ga mu gaaw ci na muy doxe gaaw ci ni muy doxe wala yusannu illa fi tawaafi alqudum doonte ne loolu diglewuñ ko sunnaaluñ ko lu dul ca wër ga nga xam ne moom ngay yëgsee ca kaaba ga xam ngeen aj makka am na ñetti wër tawaaful qudum mooy wëri bi nga yëgsee tawaaful ifaada mooy bisu tabaski ba tawaaful wadaa mooy ba nga koy tàggu di dem ngi noonu wa fi al-ashwaat as-salaasati al-uulaa minhu faqat ki nga xam ne yaa ngi doog a yëgg kaaba ga ci aj wala ngay doog a yëgg kaaba ga ci umra dañuy naan bëgg nañu ñetti tuur yu jëkk yi nga gaawal sab dox su ñetti yi paase nag nga commencé dox normal ba ba tawaaf ba di jeex bu dee nii ñaareelu sunna ba al ittibaau wa huwa kashfu dabi la nga xamee ne ni moom mooy génne sa mbagg ay kataful ay man sa mbaggu ndeyjoor mi ngi noonu sa mbaggu ndeyjoor boog wala yusannu illa fi tawaafi alqudum xaasatan di wër kaabe gi génne sa mbaggu ndeyjoor ca wër gu jëkk ga dong lañ koy sunnaale amma yeneen wër yi loolu amu ci nga noonu yeneen wër yi loolu amu ci wali rijaali duuna nisa góor ñi rek lañ ko sunnaalit jigéen ñi bokkuñu ci boo doon seetaan télévision kon képp koo gis muy wër kaaba gi nga gis mu génnee loxo ndey jooram xamal ne kii mi ngi doog a yegsi wa yakunu fi al-ashwaati sab'ati amma amma nag génne sa loxo ndeyjoor boobee dafay nekk ci juróom-ñaari wëri kaaba gi yépp bokk na lu borom xam-xam yi di wax rasul sallallahu alayhi wasallam ba ka waa Makka joxe ndigal mu ñëw def umra umratul qada bokkoon na lu siiwoon biir Makka julit ñi day koo ci gis léegi ma nga yooyo yooyo yooy mooy amatuñu benn njëriñ madina googu ñu gàddaay léegi dañoo na sax léegi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne sahaaba yi suñu yeggee màkka yéen ñëpp génn leen seen loxo ndeyjoor te bu ngeen yegsee ci kaaba gi premier tuur yu jëkk yi na ngeen sax ñukk mooy waaxu waaxu bu tàng bi waa màkk ñëwee gis yonent bi ak saxaabam ñëw ak ni ñu duggee màkk ku nekk génne sa loxo ndeyjoor ak ni ñuy attaqué kaaba gi ku nekk di waaxu ñu ne bisimilah jàmm ñun li ñu doon wax ak li ñu gis ñu bokkul kët loolu moo tax ba jamono Omar ibn al-Khattab Omar ñu ne dem na ba di mébatoon tere loolu ndax sabab ba moo nekkoon li waa màkk doon wax waaye gannaaw ba mu ne yàlla ak yonent yàlla ñoo gën a xam nañ continuer def lañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam santoon mi ngi noonu bu dee nii la nga xamee ni nii moom mooy ñetteelu sunna bi mooy taqbilu alxajar al aswad inda badi tawaafi in amkana mooy bu dee dafa yomb mooy bala ngaa wër kaaba gi da ngay dem fóon lii di xajarul aswad waaye daanaka jamono yi ñu toll man nga wax sax borom xam-xam moom du ko fóon ndax coow na ba nekk ci fóon ko borom xam-xam du ko def gis ngeen ndax lu jafe la lool wala boog xanaa ay cas exceptionnel waaye daal jafe na lool lool lool rawatina jamono yi at nit ci yegg ba tiim xajarul aswad di ko fóon mi ngi noonu wa illa iktafa bi lamsihi bil yadd aw al ishara inda ta'azzuri zari su dee mënoo ko foon nga ñëw raay ko sa loxo daal di jàll su dee ne mënoo koo raay soo yegsee ba jub ko nga mé mépp say loxo nii jublu ko mel ne ku koy nuyu daal di jàll li fi'lihi alayhi salatu wasalaam zalik ndax ñu ne loolu lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defar na ko maa ngi am sama benn waay nee na dama ne tey moom xajarul aswad du ma génn kaaba gi ci fóonu ma ko waaye daal nee na daa toog mujj mu mu mu yeewu ci ay nelaw fekk gaa yi defar ko ay bandas ak ay glace ndek ndek di xam na bu yàgg ba gaa yi jële ko foofu naam parce que léegi-léeg jamono at moom day am ñoo xam ne nii seen fanatisme rawatina ñu jóge ci yenn dëkk yeneen yi pour ñoom fokk ñu yegg ci xajarul aswad loolu nag moo tax léeg-léeg buuxonte ba fay am pour nga dem ba yegg sa kanam gi nga teg ko ca loolu moom beneen mbir la mi ngi noonu ñeenteelu sunna bi mooy qawlu bismillah wallahu akbar booy commencé tawaaf nga ne bismillah الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك يلا لي دي مانكو يدف غير جملة دقل سبتيري ووفاء بأهدك متل ديك بغا خمني دنكو ديجنتي أك يو واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أك توب غني توب سنة ينتبي صلى الله عليه وسلم inda bada shawtil awal ca mooy boy commencé ca tuur bu jëkk ba loolu ngay wax niñ ko waxe sànq nag mooy lii ay sunna la soo ko fàttee amul lenn lum lay lum lay wàññi nga boy commencé rek nga wax bismillah wallahu akbar mi ngi noonu amma juróomeelu sunna bi mooy du'aa'u asnaa at-tawaaf wa huwa ghayru muhaddadin wala mu'ayyin bal yad'u kullu taa'ifin bima yaftahu Allahu alayhi mu ne sunnal nañu kii wër kaaba gi mu boole ko ak ñaan ñaan yooyu nag du ñaan yu ñu tënk wala lu ñuy ràññee ci dara te dañ gis ay téere yu ñuy joxe naan bu wër kaaba gi lii ngay wax laa ku nekk da ngay xool la nga xam ni moom moo gën ci yow ci mbiru àdduna mbiru allaxira nga ñaan ko mi ngi noonu غير أنه يسن ختم كل شوط بقوله أما nag soo demee ba jeexal ba yegsi ci xajarul aswad nga xam ne daf nga benn tuur sopp nañ nga ñaan ñaan gi te mooy rabbana atina fi dunia xasana wa fi laxirati xasana wa qina azaba annar commencé war say ñaan commencé war say ñaan soo ñëwee ba def deuxième tour rabbana atina fi dunia xasana wa fi laxirati xasana wa qina azaba annar ndax ñaan gi dafa tënk ñaan yépp te mooy benn ñaan bu ñu yàlla wax ne ñi aj màkka loolu lañ koy ñaan ram bi mu ne ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لولو تاخ ñaan go ñaan makka baxna waye ñaan ga gën ci ëmb lepp moy ñaan gi mi nga non moy ñaan gi te budul makka yit daani ko ñaan gënuko ga ya ngi netali ne ben mbolo dañu fek seti won Anas ibn Malik rahim radiyallahu anhu biñu dem ñu nako Anas ñaanal ñu mu ne rabbana atina fi dunya hasana wa fi laxirati hasana wa qina azaban nar gaa yi dem ni bi ñu dem ay jamono ñu ñëwaat ziyaar ko dañuy dem anas ñaanal mu ne rabbana atina fi dunia xasana wa fi laxirati xasana wa xinaa zuma naar benn caamin jóg na waa anas loo ci dolli dara mu ne la wax ma lu manqué ma dolli ko ci bu dee la gën ci àdduna yàlla may na la ko la gën alaxira yàlla may na la ko musal na ci sawara lan moo ci manqué dara manqué wu ci mi ngi noonu rab naa ci ne fi dunia xasana mooy yàlla may ma soxna su baax kër gu baax waruwaay yu baax doom yu baax lépp lu baax lépp loo xam ne lu baax la ci àdduna yàlla yàlla nag ma ko may la baax ci àllaaxira mooy aljanna ak la ci ëmb yàlla nag ma ko may musal ma ci sawara kon loolu dara manqué wu ci amma bu dee ni la nga xam ne mooy juróomeelu sunna bi noom juróom mooy juróom benneelu sunna bi istislaam mooy istilaamu ruknil yamani bil yad mooy ruknul yamani mooy xajarul aswad fi mu nekk pied bi nga xam ne moo tolloog moom nga xam ne pied boobu boo ci jógee yaa ngi jëm xajarul aswad mooy ruknul yamani kaaba gi gis nañu ne masalan mi ngi nekk nii xajarul aswad ci poté bi la nekk ruknul yamani mooy poté bi ndax ñaari poté yooyu rek ñoo nekk ci fondement ibrahim kaaba ga dafa demoon ba li ñu tuddee ah xajru Ismaïl mooy xajru Ismaïl mooy rond boobu ngeen gis ci gannaaw Kaaba gi foofu la Kaaba ga yemoon waa Quraysh yi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk yàlla yónnee ko ko la ñu tojoon Kaaba gi di ko defaraat liñ daan doy waar doy waar dañ ne wa Kaaba gi bu ci kenn dugal lu dul dërëm boo xam ne wóor na ne yaa ko ñaq yaa ko moom. lañ dajale woon munul tabax kaaba gi yóbbu ko ca fondement Ibrahim ñu jël lañ ca man tabax ko mooy comme fi mu yem nii la ca des ñu def ko benn demi cercle boobu nee na kuy wër na wër gannaaw demi cercle bi looloo tax ñuy wër kaaba gi yépp daañu wër fondement Ibrahim waaye ñaari poto yee comme ñaari poto yi loolu du woon fondement Ibrahim fondement Ibrahim ma nga nekk ca ñaari poto yi nekk ca gannaaw ma la doon misaal. looloo tax ba bu ci wër kaaba gi poto yooyu mooy côté yi nekk ci gannaaw loolu kenn du ko raay kenn du ko raay ñaari côté yi rek nga la ñuy raay mooy point bi ak fi nga xam ne fi la xajarul aswad nekk mi ngi noonu kon loolu la ñuy tuddee ruknul yamani su ko defee heure boo xamee ne nii romb nga ko moom da nga koy raay kenn du ko fóon boo yegsi ci ajrul aswad nag wa taqbilul xajrul aswad moom nga fóon ko kullama marra bihima asnaa tawaafihi bi fi'lihi sallallahu alayhi wa sallam zalik kama warada fi sahih te mooy bu dee yomb na ci yow da ngay raay pie bi fóon xajrul aswad mi ngi noonu juróom ñaareelu sunna mooy addu'a bil multazim inda faraghi min at-tawaaf wal multazam huwa al makaanu ma bayna baabil bayt wal xajru al aswad am na fu ñuy tuddee multazam nga xam ne yonent bi alayhi salaam dafa taxawal ñaan fa mooy bi mu wëree kaaba ga juróom ñaari tuur daa taxaw nag diggante xajrul aswad ak kaab buntu kaaba gi ñaan loolu it ku mu yomb ci yow mën nga ko def donte ne suñ jamono tey ji moom yooyu yépp nañ koy jàngee ak na mu demee moom dana jafe nga mën koo def waaye boo waree kaaba gi ba pare foo taxaw ci biir kaaba gi nga ñaan it loolu mooy jubluwaay bi waaye bu dul woon nag xat-xatu nit ñi soo waree sa juróom-ñaari tuur da ngay taxaw diggante xajarul aswad ak ba ak buntu kaaba gi nga daal di ñaan mi ngi noonu mu ne loolu gis nañ ni li fi'li ibn abbas radiyallahu anhuma zalik loolu jëlee nañ ko ci ibn abbas te la shakk ne ibn abbas du ko saxal lu dul da koo jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu delloo ci juróom-ñetti sunna juróom-ñetteelu sunna bi am ci wër kaaba mooy salaatu rakaatayn baada alfaraag min altawaaf xalfa maqaami ibrahim mooy ki wër kaaba gi ba pare day dem ci maqaamu ibrahim benn place la boo xam ni am na lu koy mandargaal mooy tànk Ibrahima yi ñu nga def foofu ñu def ko ci ay verre ca côté boobee ngay taxaw julli fa ñaari rakka yaqra'u fihima bil kafir kafirun wal ikhlas ba'da al fatiha ñaari rakka yooyu la gën lañ cay julli mooy qul ya ayuha al kafirun ñaareelu rakka ba nga tarifa qul huwa allahu ahad loolu nag waxtu bu nit ki wuree kaaba ak waxtu wum mën a doon sunnaal nañ mu def ñaari rakka yooyee bari na ñuy dëgërloo ci tahiyatul masjid ne waxtu woo duggee jàkk da nga ko war a def mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu teree ñu julli ci waxtu yenn yi gannaaw takkusaan gannaaw fajar ila axiri gis nañ cay waxam doon na wax ña nga xam ne ñoo doon garde kaaba gi bu leen tere kenn koo xam ne ñëw ne fii di julli waxtu wu mën a doon mën na koo julli kon loolu it ñu gis ne kon la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne kenn du julli gannaaw takkusaan wala kenn du julli gannaaw fajar la nga xam ne mooy tahiyatul masjid moom bokku ci ndax daf ne ku dugg jàkka bu mu toog dodul daa julli ñaari rakka bu dee juróom ñeenteelu sunna bi ci wër kaaba mooy shurbu min ma'i zamzam wa tadallu'u minhu ba'da al-faragh min salatu rakatayn ki ñëw kaaba ga wër ko juróom ñaari yoon dem julli ñaari rakka dañu sunnaal mu dem ci ndoxu zamzam mu naan ci ba biiram fees ba yëg ne ndox mi yegg na ci ay faaram mi ngi noonu mooy naan ba biiram fees ca xam nañ ni itamit ndox moomu ndox la bu suñu borom yàlla barkeel lool mu nekk ci màndarga yi nekk ca kaaba ga ku dem makka war a itti woon naan ca ca daanaka mooy benn sëri ca bu la nit mën a jox mu jóge makka mooy zamzam leneen lu dul zamzam xamal na ko lu ko jox mu jóge makka duñ ko fa yóbbu rek mu indiwaat ko fukkeel ba mooy lan mooy arrujuu lil lil istilam xajarul aswad mooy sunnaal nañu kii nga xam ne daa wër kaaba gi julli ñaari rakka dem naan ca ndox ma mu delluwaat daa di raay lii di xajarul aswad qabla alxuruj ila almasa avant muy dem ca fa muy dawe nag safa ak marwa mu ne tanbix mi ngi lay bàyyiloo xel adillatu jamii ma taqaddama amalu rasulillahi almubayinun fi xajjati alwada yi yépp jëf la joo xam ne yonent bi moo ko jëf ñu leeral ko ca at ga nga xam ne moom la tàggatoo woon ak xeet bi ca rawatina xadiisu jaabir ibn abdullah gis nañu ne moo détaillé ajug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba muy jóge madina ba ajam ga yépp mat ba keroog ba muy taggu makka di nibbi madina xadis bu gudd boobee mi ngi ci téere yi borom xam-xam yi ñu génne ci ay atte yu bare bare bare bari mi ngi noonu léegi nag bu ñuy ñëw ci aadaab mooy yan teggin kiy wër kaaba gi moom la war a jëfe an yakuna tawaaf fi xushuin wastihdaari qalb mooy kii wër kaaba gi dafa war a ànd ak toroxlu ak teewal xolam ci li muy def toroxlu ci lan mooy suñu borom yàlla subhanahu wa taala mi ka sant muy julli ca ne texe ne alladina hum fi salatihim xaashiun ñay julli toroxlu ci texe nañu wër gii ngay wër kaaba gi it yaa ngi koy def muy ndigalu yàlla nga ànd ci ak toroxlu sa diggante sa borom teewal sa xol ci li ngay def wa shuuri bi azamati llahi azza wa jal fi xawfin minhu taala wa rëgbatin fi ma ladayhi nga yëg lii di màggaayu yàlla daa di feeñal ci sa xol ragal goo ragal mbugalam ak xemmem gi nga xam ne xemmem nga ko xéewal ya nekk ci moom xam nañ ne yàlla jalla wa ala ñaar lañ koy ñaane dañ koy ñaane ci suñu làmmiñ di ko ñaane ci suñu jëf xaal bi ngay wone toroxli bi ngay wone ci kanamu yàlla loolu ak ñaan la mi ngi noonu loolu tax kiy ñaan sax di won ak toroxlu di yëkk tey loxoom kon jëf yi it daa bokk ci ñaan gi ñaareelu teggin yi an laa yatakallama taifu li gayri darura mooy kiy wër kaaba gi mu bañ a wax xanaa lu dul loo xam ne munta ñàkk wa in takallama takallama bi xayrin faqat heure buy wax mu wax njekk kese ci qawlihi sallallahu alayhi wa sallam faman takallama fala yatakallamu illa bi xayr kenn ci yéen buy war kaaba ga ngalawaay bu mu wax su demee bay waxit bu mu wax lu dul loo xam ne yiw la ñetteel bi أن لا يؤذي أحدا بقول أو فعل mooy kii wër kaaba gi bañ a lor kenn ci wax jum koy wax wala lor ko ci jëfam te xam ngeen ne mbokk yombul mbooloo ma fay daje yépp seen làkk bokkul seen aada bokkul ñu bokk benn mbir buñ bëgg a def il faut dënn yi yaatu bu loolu amul rek day jur nattu su ko defee ka fay dem xam na lor ya koy dal jóge ci ñeneen loolu ci jaamu yàlla gi la bokk tuyaaba yu rëy la koy jural amma moom mu moytu kemtale kattanam bañ a lor kenn is aziyatul muslim muharramatun ndax kat lor ab julit dañ koo araamal wala siyama fi baytillahi taala waxumaa nag ngay lor sa mbokkum julit ci biir kaaba gi te mbokk yal na yàlla musal ñu ci fitna am na ñoo xam ne nii am nañ natt bu tol ne dem ba kaaba ga di fa sàcc nga noonu sama mbokk Mouhamed Sarr yal na yàlla dolli ñu dolli ko ko fam doon tawaaf kaaba ga lañ dagg kamaraam gis ngeen loolu moo tax léeg-léeg da ngay caméra de surveillance yi am na ñenn ñuñ ciy gis suñu mbokk saaxoo nee na toog na ci kaaba gi mujj rek mu gis policiers yi ñëw benn waay rek croché ko yóbbu ko lu tax mooy ci caméra yi des fois dañu am ñu ñuy gis su ko defee kon mbonuk doomu aadama yegg na foofu dem ba ci biir kaaba ga di fa sàcc comme ni mu amee ci jàkke yi xam nga ne sëñ bi néegub yàlla nga dem fekk jullit ñi bàyyi seen kër dem ci néegub yàlla di julli nga ñëw ramas seen dàll yëpp yóbbu wala rotti seen i portable yóbbu loolee mbokk da ngay gis mbon ay degré la mbon ay degré la amma kaaba ga wala waxuma kaaba ga sax masjidul haram suñu borom nee na ku fa mébét def lu bon même lu bon la bu yeggul danaa ko mbugal mbugal mu tar wa man yurid fihi bi ilhaadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim ki doon bëgg a sàcc xaalisu waa ji sottiwul borom bi nee na mbugal mu tar mi ngi koy xaar heure bu ñëwee ci man kon loolu ñu bàyyi koo xel ñeenteel bi mooy an yuksira min azikri wa du'a wa salaatu ala nabi ca mooy ki nga xam ne dafay wër bokk na la ñuy tegginoo ay bari lool zikrullah bari lool ay ñaan bari lool la nga xam ne moom mooy asalaatu ala nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi noonu dugal géej bi fu mu toll ci encore ah kon waaw kon jot na mën nañ ah non non heure nodd bi la wax ah ci nodd bi hmm. wala kuli xaal day wax la nga xam ni moom mooy shurutu sa'i gannaaw bañ gisee wala bokk la nga xam ne moom mooy almadatu sadisa lan mooy ñetteelu ponk ci ponki at gis nañ ponk bu njëkk ba moo nekkoon armal ñaareel ba ci la ñu génn war kaaba ga ñetteel ba mooy lan ñetteel ba moom mooy as-sa'y mooy daw diggante safa ak marwa boo yoree sa téere mu ni as-sa'y huwa al-mashyu bayna as-safa wal marwa su ñuy tuddee sa'y ci arab mooy lu ñuy tuddee daw waaye nag du lu ñuy daw toujours mooy dox ba ngay dox diggante safa ak marwa zahaban wa jiatan dem dikk bi niyati taabud daw loo xam ne da nga cay yéene jaamu yàlla loolee wa huwa ruknul xajji wal umra ponk la ci ki at makka fokk mu daw safa ak marwa ki umra fokk mu daw safa ak marwa لقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله lii di safa ak marwa day ci mandargay yàlla yi la bokk te borom bi mu ne fa man hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima safa ak marwa ñaari tund la yu nekk ca wetu kaaba ga seen diggante à peine ay quatre cent mètres la moom la jullit di daw soo jógee safa dem marwa muy benn doonte ne nag am na ñoo xam ne ndeysaan ci ñàkk a xam dañoo jàpp ni ñuy wëre kaabe gi ca muy tuur bi yépp nga def ko muy benn safa ak marwa it da ngay jóge safa daw dikkaat safa muy doog a doon benn au lieu ñu daw kon safa ak marwa sept fois quatorze fois lañ ko def ñu ngi noonu loolu ñàkk a xam la kon mooy daw diggante safa ak marwa foofu nga xam ne sunu maam haajara moo ko jëkk a daw ngir gis ku ko mën a xettali ba may ko ndox fekk ndox ma ko ibrahima bàyyeeloon jeex na ismaila ngi jooy ba mu ragal day faatu su dawee ba safa taxaw xool xool gisul kenn mu ñëw ba marwa xool xool gisul kenn heure bu ma saan dem bay jege ismaila day daw ngir bañ a dégg jooy yi loolu moo tax ba ñu màndargaal ko place yoo xam ni boo fa yégee da ngay daw mooy ñel góor ñi kon loolu la wax mu ne wali qawlihi sallallahu alayhi wa sallam isaw fa inna allaha kataba alaykum as-sa'ya e way de leen daw diggante safa ak marwa yàlla farataal na ko ci yéen te loolu it la ko waraloon bokk na ci sahaaba yi dañ doon wax a ñun dañ aj makka mais nag duñu daw diggante safa ak marwa lu waraloon loolu mooy ñu ne ci histoire dafa am ñaari saay-saay ku góor ak ku jigéen bëgg a def lu bon daa di dem dugg ca kaaba ga def ko fa yàlla subhanahu wa taala soppi leen ay xeer loolu moo am ci légende bi am ci waa Quraysh doon wax am na ñenn ñu ko génne seen tafsir lu mel ne Ibnu Kasir ak ñeneen yàlla soppi leen ay xeer bi nit ñi ñëwee xàmmee leen ñu xam ne kii diw la ak diw ñu jël benn bi ku góor ki teg safa jël ku jigéen ki teg marwa ngiree mu nekk mandarga ci képp ku aj si mag makka xam ne daa war a màggal néeg bi ndax ñii nga xam ne ñoo ko doon jalgati gis nga ñi leen yàlla soppee te it yàlla wax nañu xeet boo xam ne ay golo la leen soppi loolu génération boobu di ko def di waaru ci ñooñu bañ demee ba génération boobee passé nit ñi nuur ci jaamu xërëm léegi nag gaa yi commencé bu ñuy daw safa ak marwa dañuy dem raay xërëm ba ba fee raay xërëm ba fee ci seen maam maam ya ko fa defoon ñoom dañ ko defoon ne ñii ñu bon lañu ay njaalookat yu bon yàlla soppi leen ngir ñu waaroo ci seeni sib ñoom ñëw di ko jaamu loolu mbokk moo tax nekk danger photo yi ñuy photo sëriñ si statue yi ñuy defar ci tali yi di ko defar sëriñ si yow ma ko def xëy na mën nga cee mucc waaye say doom yi ñëw fekk nga jël sa photo sëriñ bu toll ni nit teg ci saal bi nga dem ñoom ñu ñëw sa gannaaw naka la ñuy nar a jëflanteeg photo yooyu ndax xam nga ko laa mbokk waxuma doom yi ñëw waaye génération bi lu nekk lañ lay nettali ci li doomu aadama yi di def ak la nga xamee ne nii moom mooy photo yi nga noonu soo benn waaye fii ci jàkk ji nettali na ma rek photo sëriñ bi nekk fii ci police gis na koo xam ne fajar mi ngi toog jàkkaarloog photo bi di ñaan di ñaan di ñaan mbokk loolu ay musiba la su ko defee kon borom bi nag ne sahabatul kiram ne déedéet amma yéen daw leen diggante safa ak marwa te ngeen def ko te yàlla tax te loolu it yéeféer buy def lu bon ci jaamu yàlla du tax yow jullit nga ne kon yow da nga koy bàyyi ngir loolu déedéet inna allaha kataba alaykum sa'ya yàlla faratal na ci yéen loolu kon dee leen daw mu ne nag loolu walahu shurutun wa sunanun wa aadab ñeel na ko ay chart ñeel na ko ay sunna ñeel na ko ay teggin xam naa mbokk dañuy doyloo loolu incha allah buñ fi yàlla dajalewaatee ñu dooga ko xool nañ koy faran fancee yal na yàlla boola ñu ca ñu aji ci néegam ba ña ca demulit yal na yàlla bind leen yoolu acc wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wala kulli xaal bokk na loo xam ni dafa dab ci jamono sunu maam yi mënuñu koon imaginer waaye am na tey ci Europe mooy ay gox yoo xam ni fañ leen permettre ñu war fa julli juma mbooloo ma xajuñu fa seeni borom xam-xam ijtihaad bi ñu mujj def mooy dañ koy def ñaari juma masalan ñii ñoo ñëw julli une heure ñii ñëw julli deux heures borom xam-xam yi nag ndax imam bi jiite juma bu njëkk bi am na droit dem jiite deuxième juma bi loolu moom ñëw na ci téere fiq yi bu yàgg te mooy ndax nit ki mën na jiite juma bi dem ci beneen dëkk jiite leen juma loolee bu dee lu mel ne ay mazhab malik ñoom duñu nangu loolu julli nga ba pare jeex na am na nag yeneen mazahib yoo xam ne ñoom nangu nañ ko la ñuy tegtaloo mooy kii di Muaz ibn Jabal daana ànd ak yonente bi salaa sallam julli géey gannaaw ba dem jiite seen waa dëkk géey kon ñoom ñu ne su dee ne dëkk ba kat koo xamee ne ni munta munta xutba nekk fa dara nekkul ci imam bi xutba ci jàkk bi dem xutba jàkk ba le xam naa ni ku njëkk ki ngay wax nga xam ne moom day xutba jox keneen mu jiite daa gis ne xutba ba li nit ñi mënul jiite gi nag ñu bëri mën nañ ko moo tax muy xutba jox keneen mu nekk di jiite loolu daal dañuy wax ne wurta am lu dul ci lor bu lor amee nag loolu dara newu ci wallahu aalam amma deuxième question bi ca mooy ki def witre ba pare dootul naafila malheureusement dañ koy dégg ñu ngi koy wax lu bari ci suñu réew di ko dégg ci ubbee yi ay wax dëgg yàlla loolu mbokk dañuy gis ne njuumte la njuumte la borom xam-xam yi nga xam ne dañ ciy sukkandikoo ñuy wax amul kenn koo xam ne dafa naan ki wiitar ba pare dootul julliwaat ñëw na ci xadis yi nañ ci bàyyi salaam ne def leen seen mujj gu julli mooy wiitar mais loolu mooy lool la gën mooy la gën amaa nag yonent bi alayhi salaam waxul fenn ne ku wiitar bu mu julliwaat bal lay tegtal mooy yonent bi alayhi salaam daan def safa wiitar ba pare toog julli ñaari rakka lii ñëw na ci teru sunna yëpp demal sifatu salatu nabi kon loolu liñ lay wax mooy su dee yaa tànnal sa bopp xam nga waxtu yi ngay naafila naafila say naafil yëpp mujj safa witr mais tey boo jàppoon ni guddi gi kat du ma yeewu di naafil kon def naa sama safa witr yeewu nga guddi gi avant fajar di jot des na une heure de temps kan moo lay xañ julli laa dañ naan la jullil waaye nag bul wiitaraat jullil bul wiitaraat am yeneen borom xam-xam yoo xam ne ñoom dañ naan sax jullil benn rakka wiitar ñaari wiitar di nekk chafa nga def say julli yëpp doog a tëj say wiitar waaye yooyu yëpp d'accord ay waxi borom xam-xam la waaye daal la gën a tënku mooy wiitar bu ko def ñaari yoon ci benn guddi la gën mooy nga mujjee ko waaye boo wiitaree ba pare it yàlla may la temps bu yaatu man ngaa defaat say naafila sans nga wiitaraat wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ñi nga xamee ne nii dañuy tawaaf ñoom dañoo nekk ci la nga xam ne ni waajib bu ñu nekk tey jii bu imam doon xutba ki dugg si ci jàkka ji lan la sunna wax ci moom mooy na julli looloo tax ba imam buy xutba it kii ñëw moom war a tawaaf la nga xam ne mooy tahiyatul masjid ci masjidul haram mooy tawaaf moom mooy wër ba ngay wër mooy tahiyatul mooy nañ koy nuyoo looloo tax du ñu tere ñuy tawaaf bu julli gi jotee nag ñu doog leen a arrêté wallahu subhanahu wa taala alam ah waala kulli xaal mooy dugg sëñ dugg si ci ci ci ci ci biir jàkka ji la gënoon moom ca ñoom mooy ñu defoon ñaari rakka toog loolu mooy la gënoon ci ñoom donte ne ni lu bëri ci borom xam-xam yi comme ñoom dañoo jàpp ne tahiyatul masjid tawaaf bi ngay tawaaf day nekk tahiyatul masjid loola tax ñu jàpp loolu bu ñu xoolee doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax tawaaf boobu gaa yi di répété di répété répété yonent bi mu ajee màkk ñetti tawaaf rek la def tawaaful qudum tawaaful ifaada tawaaful wadaa loolu mooy la nga xam ne mu la defoon am na nag ñoo xam ne bu ñu nekkee màkk heure bu ñëwee tawaaf heure bu ñëwee tawaaf waxuñu baaxul waaye daal xëy xëy la gën ci sunna mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naam bismillah waaw maaleykum salaam man ngir lañ bokk man de bokkuma benn ngir man moom bokkuma benn ngir daa fekk ni heure bu bu ñuy wax ngir yi dañ ko fee fekk la ko mën a expliquer it mooy àdduna tëddiwul woon nii bu jëkk xam-xam da daan topp aw yoon boo déggee ñu naan Afrique de l'Ouest ñu ngi ci mazhab Mali mooy borom xam-xam yi jàngi woon ca Madina yàlla na yàlla fayal ñu leen mooy ki nga ay ay xayrawaani ak ñu deme noonu ñoom bañ demee jàngi ñoo tasaaroo Algérie Maroc ñëw di jàngal nit ñi lu ñu jàng lañ jàng ca Mali lañ jàng ca Mali am ñeneen ñoo xam ne ñu nga jaar Égypte di jàngale ngërum Shafii ñee nga jaar Irak di jàngale ngërum Abu Hanifa adduna tëddiwul woon nii téere yi nga daan am fii téere yooyu rek nga mënoon a am looloo tax suñu gox yi yépp ñoo daan bokk benn gisin moo daan bokk benn gisin amma bi ñu demee ba àdduna gëndaloo ba tey jii ni nga mën a jote téere Malik noonu nga mën a jote téere mboole mi borom xam-xam la gënoon mooy nit ñi dellu cosaan la yonent bi ak sahabam nekkoon xam ne daal jàngalekat bi mooy lii ah yonent bi alayhi salaam wax amma bu dee ne nag ñi nekk sunu gox yi nga xam ne jànguñu lu dul lii loola tax ñu bëri ñun bu ñuy wax naan lii la ma zëb Malik wax ndax bu dee dañu laa laaj rek nga wax dañ naan kii jàngul dara lu tax mooy kay lay contre moom téere yim jàng yépp bokkul ak li ngay wax loolu tax ñu naan mazhab Malik lii la wax waaye nag sunna biñ ci jàngee di la ñu wax su ko defee daal ñoo xam ne la ñuy jaamoo yàlla ñun mooy tënkuwuñu ci benn mazhab suñu mazhab mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam su dëppoog Malik baax na su dëppoog Shafii baax na su dëppoog ab Ibnu Hanbal baax na la ñu yitteel mooy la gën a wér lu jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xam naa ñu ngi jéggalu ci yeneen laaj yi ba yàlla dajale waat ñu fi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk